saa ñu wéy dañuy ñëw uh, ànd ak uh, Mouhamed Diop comme ni ñu koy defee saa su ne dañuy dem ci diwaan yi nga xamante ne ñoom ci jamono ji mbënn mi daf leen a sonal uh, Mouhamed Diop bu fekkee yaa ngi may dégg maa ngi leen nuyu. Mouhamed Diop. xadi colonel jërëjëf. oui nekk. waaw jamono ji euh, may wax ak yow euh, maa ngi fii ci quartier euh, Daouda Yadd ci Yëmbal Sud Yëmbal Sud nag bokk ci banlieue bu Dakar ni ko yeneen gox di dundee ci wàlluk inondation bi mbënd mi ñoom ba nu fi ñëwee gis nañu ne ni ñu ko constaté ni ki démb tey biir kër yi fees dell la def nit ñi ñu ngi ci mbedd mi di xool ana yan yoon lañu woon a mën a jaar ngir rek dindi ndox moomee ci biir néeg yi ci biir kër yi ak ci biir koñ yi en tout cas fii ñu ñëw ci quartier Daouda Yade naam fekk nañ fi ak euh, benn pompe xamuñu nu pompe pompon nag moo tax askan wi ni ngeen ko gisee ni ñu ngi nii daan ñu ko leeral euh, sëñ bi ñu lay nuyu maa ngi lay fay ku baax. Mhm. ayca naka ngeen di dundee inondation yi fii ci quartier Daouda Yane. metti rek comme ni nga koy dundee yow fi nga taxaw sax gis nga ni ndox mi dafa bari. ndox mi dafa bari ak pompe bi li ko fi indi dañoo dox ay démarches boobu ba léegi taw bi mu tawee ba léegi depuis vendredi ba léegi yaa 6 ou 7 benn autorité boo xamante ne ñëw nga fi jàppale ñu ci lenn lenn lenn jàppale ci lenn dañ ñoo seetaan ñu ngi jox ko waa sapeur pompier di dox ay démarches di génn suñu moyen di jéem a def ay affaire pour ndox mi jugee fi mënuñu si dara ba tey dañoo obligé organiser marche ba yéen seen kii bi ñoo ko couvrir seen TV ñoo ñoo ko couvrir ce matin ñu organiser takk suñuy brassard rouge dem ba buntu maire yi demee foofu da ko ne ngeen ñëw médiatiser affaire yi ñu wax li ñuy wax ci la ñu woo jox ñu pompe bii jox nañu nag kenn du ko xeeb ndax tane na mais pompe bi sax ñu taal ko pour ne ni problème la dañoo jox pompe boo xam ne 1640 la mooy yi ngay mulañ ñi yooyu dafa yàgg dañ koy wax dee et président Macky Sall ñun faluñu ko woon pour ba mu xamee ni daa tële mënatul na bàyyi gis nga nit da ngay diñ ci sa bopp buñ la falee cim réew jël li ñu li nga xamante ne ñun ñoo ko bokk dénk la ko pour nga sàmmal ñu ko boo demee ba dangaa ngaa tële gàgg bàyyil ñu xool keneen ku ko mën a gàgganti ñu woo ko. d'accord gis nañu ne mbënd mi euh, lor na leen ba ci buntu kër yeeg bi néegi jamono ji mi ngi taw instant bi ban yëg-yëg ngeen mu ngi taw souvent en temps en temps normal buy taw dangay gis ku nekk dem sa kër fe seelu ñun amuñu fu ñu seeloo ndax kër yi ñoo gën a pur ka mbedd mi fii ñu taxaw nii moo tane ñun biir kër yi démb suñu benn voisine doom bëggoon naa noyé fii ci ndox bi bu fi deewoon ñun ñooy perte wala lu ci mënti amit conséquence ñun lay dal ndox mi ni muy bari autoram dem na ba 1 mètre 80 boo fa jamoon fii la lay yem da ngay tëdd ba guddi jekki jékki dégg lu ne pàcc ci ndox mi doo xam lan la lu ne mën na fee dugg ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci kër yi ñii dañuy tëdd une heure de temps deux heures ndax lal yi amatuñ fu ñu tëddee te loolu dafa ñaaw ñun ay citoyen lañu waaw alors weddi weddi gis bokk ci da may xàllal ñu wan leen yoon bi donc euh, ni ngeen ko gisee ni xadi colonel euh, instant bi ñu ngi nekk di dugg ci ndox mi gis nga donc donc euh, voilà voilà ndox la jamono ji dañuy dañuy xuus ba ci biir voilà ba ci biir kër yi sax dafa am ndox donc lii la askanu Mouhamed Diop euh, ñu koy euh, jaajëfal bu euh, baax a baax comme noo leen ko gisee ñoom ñu ngi ci ndox bi ba tey ci taw samedi bi la woon te ni tey itam mu ngi taw ba tey ñu daal di àddu jëmale ko ci njiitu réew mi nga xamante ne ni ki démb moom àddu woon na jëmale ko ci askanu Sénégal daal di xam ne ni dina ñu génne koppar gu tolloo ko fukki milliards ngir daal di taxawal plan Orsec xam le itam ni ñetti milliards yi moom la ñuy jàppalee njaboot yi ndolu ci mën mi juróom-ñaari milliards yi moom la ñuy jox waa ONAS ak sapeur pompier yi loolee nag bi mu ci nopp jàppee ñu bari yéey nañ ci bi bokk na ci journaliste expert en communication bi lee di Bakary Domingo Mané mi xam ne ni njiitu réew mi xaare wuñ ko woon fii lu ñu doon xaar kay mooy mu daal di wax ci auditu 750 milliards yu ñu doon def ci mbënd mi Bakary Domingo Mané ñu daal di koy teewlu am na lu ñuul su bi parce que temps yëpp dañu doon wax ne moom nguuram depuis 2012 ba léegi dafa investir 750 milliards de francs pour lutter contre les inondations si communication il a tout fait pour vraiment dédouaner son gouvernement dafa waroon xam ne daal population dafa foog ne 750 milliards yooyu dugaluñu ko fu ñu ko war a dugal pour rassurer ces populations là man mu nekkoon moom damay annoncer audit pour xool càmbar est-ce que dugg naa fu mu war a duggee après si ne bu bi audit bi dafa wone ne que am na vraiment ay responsable bu boobaa responsable yooyu dam leen di sanctionné bu amoon discours boobu sénégalais yi daf leen rassuré jàngoro yu am euh, dayoo dafa laaj ay saafara yu am dayoo loolee nag le rassemblement bu écologiste yu Sénégal yi daal di xam ne ni li ñu war a defaraat moo di defaraat kon yi nekk fi ci réew euh, Sénégal ñi nga xamante ni dañoo dëkk ci bërëb yu am ndox ñu daal di leen fay jële yóbbu leen ci yeneen i diwaan euh, Mamadou Berté daal di am entretien ak suñu reporter mu xam ne ni li ñu war a def tey moo di gouvernement Sénégal ñu daal di jël seen ay responsabilité ñu déglu ci compte rendu bu non ko njiitu réew mi ngi ñaax sénégalais yi ci ñu soppi doxalin rawatina ci bàyyee tabax ci yoonu ndox mi ci gis-gisu moom a du berte bu rassemblement des écologistes du Sénégal faaw ñu am gis-gis bu leer ci ni ñuy dëkkee ngir fàggu ci mbënn mi. ñu warul dëkk foo xam ne defuñu plan d'urbanisme benn fii mooy dëkkuwaay fii la ñuy def dëkk foo xam ne nag prévoir ñu problème bi dañuy fexe nag nga dem ko def boo demee ba dëkk yi ñu rawatina nag boo ci kaw réseau toog ci kaw ëgg yëpp rafet na ci xamoo li président a bare waaye saa si ay kër tabax nañ leen ba noppi ci yoon wi ndox mi war a jaar waral mu jàpp ne faaw mu am ñu ñu déjjati tuxal leen feneen. dañ la ko war a bu fekkee ne dëkkuwaay bu yàgg la ñu def restructuration bu doon lu waaye laata loolu njiitu réew mi moom di sàkku ci askan wi ci jéem a fexe dëkk ak bi. ci ba solution di am. ak pexe yi muy tëral ngir xeex mbënn mi loolee nag la njiitu conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement daal di xamle mu di Amakodou Diouf mu xamle ni benn pexe moom la ñëpp war a topp bu ko defee ñu tàggoo ak li ni mel ñëwoon ci ak Abdoul Aziz Sow Dabax ci compte rendu tëralin bu baax la ñu amul wala sax bu ñu waxtaanewul muy plan orsec wala sax plan décennal nguur gu ñëw indi plan wees ngir xeex mën na mile. stratégie kenn du ko changé bu fekkente ne da nga fekk surtout ci côté bii loo xam ne dëgg-dëgg boo ko toppee études yi def nañ ko muy étude évaluation bi financière bi def nañ ko muy évaluation financière bu normal à moins que nga bëgg a def extension.